vraiment di remercier Jalaaw Gep. tey ku gis li xam jeunesse bi mobilisé wu pour un vrai changement 2022 la jeunesse la yéen a dit oui pour le changement et non pour un quatrième mandat parce que 20 ans déjà nit boo ko yoree pouvoir jàpp naa ne même boo liggéeyoon sax ba ñu kontaan da nga dem malheureusement le maire qui est là amul benn bilan bu mën a présenté waa Jalaaw loolu moo tax Alaaji Massamba Mbengue jóg ñun la jeunesse ñu jóg takku àndax moom former une coalition pour jëlee fi li fi nekk. démb ñoo ngi lay jaajëfal ngi ànd ak yow dugg ñangal dem tubaab jalaaw ñu def benn caravane bu am solo ñu gis na nga doxalee ak ñun ngir ñëw taxaw jàppale Baye Mass ñoo ngi lay jaajëfal baax a baax ñu lay wax na yow tey à bi jeune yi pare pour ñëw ci yéen jàppale leen di liggéey ànd ak yéen tey population bi ñëw fii changé na jalaaw ñu leen di wax yéen waa jalaaw tey ñoo ngi leen di gërëm yow lan mooy ci sa xalaat. waaw mais sant yàlla rek parce que ñun ay ndaw lañu dañuy jéem mais ku xool Jalla nu mu mel tey nga xool ne par exemple damay jël benn pàcc bu ndaw rek mooy le plan foncier. mu nekk loo xamante ne dafa bëri explication tey Jalla gis nañu amul sax benn plan directeur d'urbanisme te loolu lu doy waar la loolu moo tax tey amul ay yoon ñun nag ñu am yaakaar ne Jalla am na ñaari ponk yoo xamante war nañu ko mën a taxaw si wàllu plan foncier mooy ñu def une planification pour zones yi xamante ne amagul occupation def aussi un aménagement pour les zones déjà occupées loolu mu nekk loo xamante ne avant loolu aussi war nañu éclaircir les limites de Dialaw parce que tey kenn xamul Dialaw lan mooy frontière am ak Sendou lan mooy frontière ak Diamia lan mooy frontière am

pauvre et malade comme on peut dire parce que tey amuñu sax benn tribune alors que lu ñuy accueillir si un monde sportif xam kenn xamul nu mu toll. donc muy autant de choses waxtuñu wax mool yi parce que tey il y a un quai de pêche qui est à Niangam mais quai de pêche bi amul donc loolu mu nekk ay ah di gën a yées nag mooy éducation parce que bu ñu nee maire yi fa nekk c'est un professeur d'université alors que mon amour ça un plan éducatif lors de nous titre il y a 8 classes pédagogiques 8 classes euh, fonctionnelles sur combien de classes sur 18 classes j'ai commencé à dire il est double flux double flux il y a que ça Donc double flux il y a que donc nous autant de problèmes moi tant du job tarau à la paix masse mobilisé ou les pneus comme un tarau au moins et ta génération ça va caméraman sant di la gërëm di la wax ne suñu président bi li mu def rafet na lool mais ñu jàkkaarloo ñun tamit suñu président suñu xarit muy Papa Kader ñu ngi lay ñaanal yow yaa xam li nga bëgg si yéen yàlla na la ko yàlla defal ñu lay xamal ne yéen lan ngeen taxaw tey pour jàppale ko jeunes yi nga xamante ne tey ñoo nekk ci Jalaaw. waaw mais ji ba maa nu di nuyu d'abord di leen sant leen gërëm

jàppale ñu leen ko xale yi ñu leen yoon bi ñu war a mun a jaax pour mën a liggéey amu fi te loolu yëpp maire bi waroon na leen accompagner ñu gis ni ni loolu comme que jeunes yi dañ ko ñàkk fii ñun ñu taxaw pour jële fi système bi fi nekk indi fi système bu bees bi ki ñu fi wóolu moom mooy Mass Mbengue pour mu jàppale jeunes yi ëllëg seen suba ëllëg jeunes yi wekk ko ci moom loolu la ñuy gis di la gërëm sama caméraman démb dañoo dem dem benn Caravace dem ba ñangal ñu ànd suñu président suñu ministre bi mu jàppale ñu bu baax a baax ñu koy sant di ko gërëm di la wax ne yéen yéen a xam li ngeen bëgg ci mairie bi yàlla na leen ko yàlla defal